Euh, boo xam ne da ngay invité nit ki ba pare muy wax ngay xëccanteeg moom mais dinaa boo amee loo bëgg a wax loo fàtte tam dinaa la gàgganti yu ci mel ne communiqué gendarmerie bi yàgg nañ ñu fi wax gendarmerie li nga xamante si bii dégg ngeen ko Ousmane Sonko mooy seen leader leader li mu fi wax ci ci justice yëpp yéen dégg ngeen ko donc mënuñ tëb rek tamit ñu ne Bougane tey dafa violé li nga xamante ne moom la ko gendarmerie sant def leneen alors que nous tous nous nous on est ci xamoon ma ko man nous étions en direct di seetaan hmm. gis nañu li mu ko wax président mi ngi Bakel mënoo dugg Bakel loolu la ñu dégg si gémmiñu gendarme bi jëm si hmm. nopp Bougane hmm. donc mënuñu pour que ne euh, dafa forcé pour dugg ci ap euh, nous euh, cortège mais lu ci mënti am rek moy gendarmerie wax nañu génne nañu sen communiqué wax nañu wala amul nañu jall ci benen point gis nga Dakar Arena li fa am mobilisation bi am solo machallah peut-être ñi nga xamantene dañ doon wax ne image yaa ngi doon wax ne xalé yi commencé nañ leen yi je pense que ne Dakar Arena limu le contraire de ça la wone parce que gis nañu ay jeunes yi nga xamné dañu gëna am engagement jëmale ko ci Pastef ban jàngat nga ci am. Dakar Arena 15000 places xaaju député la matul député hmm. d'accord nga wala. da ba D'accord, na 60000 personnes moy de mooy pile fort reste suma ma wala moy député. 60000 <laughs> personnes. d'accord accord defal 77000 personnes. ngay 77000 personnes moy député. Hmm. Dakar Arena 15000 personnes. doxuñu ci populisme. ku ko mën defal rek. dama ne nangu nga wala nangu lu may nangu man yow. développé comme ñu élire nga nekk maire de Dakar. Mm-hmm. xajoo Dakar Arena ñi la fal. Mm-hmm. ñi la voté. Mm-hmm. xaju ñu stade Ablaye Wade. Ousmane Sonko ay akapes la daan woote ay ay ay nu <coughs> teere fële léegi ci ay ruq lay woote. Esplanade Grand Théâtre. tey de Arena la grand Théâtre. xam nga dama déggoo man la 15000 personnes la. damaa war a ñëw ci discours am. dama bëgg rapidement man discours am sax am na lu ci wax loo xam ne lu garaaw dinaa si ñëw la wax point par point li mu wax lépp am na vidéo ma réservé damaa bëgg nga defal ma nga defal ma benn euh, benn benn analyse bu ndaw. parce que dossier mu gis maa ko gis. Mhm. maa gis segi maa gis lépp lañ ca wax du dëkk. te buñ ci ubbee enquête gis nga bis buñ ci ubbee enquête justice bu indépendant. ñoom ñii ñëpp wër dossier boobu. dinañ leen làq jant bi. faut pas sauter faut pas sauter mi bu leerul ci ñoom dina leer ci ñeneen xam Macky Sall dem na ay ay rapport yi top, ministre am top, ko. Mhm. Sonko ak Diomaye dañuy dem rapport yi leen top topp leen. fii mhm. moom réew mi lañ ko ñun ñu liggéeyul ci cellules yi nag ñoo ci nguur gi xaaral ma ñëw ci mbooloo bi laa bëgg nga ñëwal jaañ sax ñëw sànq am na ma waxale yoo xam ne ay pig yum la lancé amul mais xam naa ne amul jarul parce def ko ko yore kan moo ko dundee bi ñu war a def ay at si ginnaaw ñun wax lu amul ma wax lu amul lan laa wax lu amul parce que dane ma yow da toog nga ne yor nga vidéo Sonko kii wax or na vidéo Sonko Sénégal gépp xam nañ ko. du dëgg néew ma néew ma kay yoruma ko de. dara dara nga yoru. fa laay yam yoroo dara. yaakaar naa débat bi boo tàggoo Sonko dinañ ko doog a def ba ñu wax. déedéet dama lay wax ne mos nga wax. parce que bu ma ci duggee moom. damay sàmb kale ba leer. ñun dañu dugg si mbirum Sonko. damay bañ na damay bañ na lépp lu ñu ko indaale. jot ci li ngeen ciy jot ngeen dem ñu naan non waroo woon a wax ak. Eh, mooy génnal foofu. dara dara mobilisation bi. waaw dama ne daaneel si non mënuma ci mobilisation bi dama ne la quinze mille places la. waaw quinze mille places la. Mm-hmm. xaaju député. waaw par rapport ak li daan dem ak pes mm-hmm. am déet. te am na ci ñoo xam ne ñoom seen propre ñoom ñoo jël xaalis jox leen ne leen dem leen cotiser. déedéet conseil lii lii lii seen union passe ku ne mille francs. d'accord. dama ne barki yonenti yalla muhammad amna ñu fa dem ñoo leen jox xaalis. ñu jox leen paas ah. lu yeen leen ay car raison yi senegal yëpp leen mobiliser ay nit yóbbu leen fële. am nga ci lola leer yow barki rasulullah sa bop la engrais eh, jaaj xanaa sax daara param ngay fukk 2 minutes nga am 2 minutes ku ne 2 minutes la am. <laughs> léegi. Mhm. mo tax mel la xaju député la jërta bako <laughs> xaju député la mhm. jërta bàkkoo ma ne ku neex dajale say mouton say beuy tok di len wax ñuy tàccu Sonko waxutul ak sénégalais bi am xam-xam waxutul ak kooku. sénégalais bi utiliser boppam bi Sonko waxutul ak kooku. ñoom kan lay waxal kon. xar meeg béy yi ko topp. baax na dinañ ñëw ci li Sonko. incha allah jaan gis nga mobilisation bu rëy bi Pastef def gis nañu fa ay jeunes. taalal am na ñu leen